bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ñu seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi RTS dellu si ne beneen yoon ni mu koy defale ci weeru koor bi seen jataayu waxtaanu koor tabaarakallahu bu ndaw ku lekkee tàndarma naan ndox naan kafe julli timis bala ñoo reer ndax ñoom yëpp la ñuy def ñu waxtaan ak ñoom jataay bii nga xam ne ci lañ ko tàmbaleek yéen jaajëfal nag soxna Aysa mi nga xam ne moo fi jaarun démb yàlla yàlla yokk ko wér ak tawfiix démb dama toll ci di misaal menn mag a cheikh mouhamadul muxtada li tax ñuy misaal yooyu dafi misaal yoo xam ne boo ko waxee nit du wax kuy kooku boo duggee ci téere fiq yeeg yooyu léeg-léeg ñu lay wax nit buñ la koy tax riijal dañ lay dañuy sonn lool waaye fii boo ne cheikh mouhamadul muxtada bëriwul ku lay wax kuy kooku ma ne bi arabisan bi walla oustaz bi nekkee ci koñ bi am arrière yooyu te wax naa leen ñu ko ko yóbbee a Cheikh Mamadou Moxtada gane si Dakar kenn min awlaadihi kenn min awlaadihi kenn ci doomam yi daan ne ustaas bi kaa ñu dem ziar ji sëñ bi mën a ko ay ca ñu ànd ziar ko waxtaan léegi nag doomi sëñ bi a Cheikh Mamadou Moxtada daa di wax sëñ bi masala mii ne ko kii day sama xarit la day liggéey ci wàllu jàngale arab alxuraan ak arab waaye fii mu luwee day boo moytuwul danañ ko fi génne ndax amee fi juróomi weer yu mu fayut mbokk yi amee fi juróomi yu mu fayut a Cheikh Mouhamad Muxtada daat ne doom ji kër googu mu nekk ba am fi juróomi weer yu mu fayut dem leen ngeen waxaale kër gi lu muy jar xam nga nun bu doon ñun da ngay jéem wàññi ne ko ma maa ci def lii daf ne ko waxtaa waxaaleel kër gi lu muy jar mu dem waxaale kër gi jamono yooyu ñu ne ko ah, dix-neuf millions de lañ koy jaay a ah, Cheikh Mouhamadou Mourtada daal di génne vingt millions ne ko dix-neuf fukki juróom-ñeent jënd leen ko ci benn bi defar leen ci lu ngeen defee de war na ko am te du ko am mbokk yi jëfe nga noonu ju am solo te mi ngi nii soriwut jëfe nga noonu ju am solo te mi ngi nii soriwut maa ngi ci tomb al infaq fi sabilillah dama leen ko bëgg introduire <laughs> waaw démb barki démb ak démb ak tey yëpp wala boog su ñett ñaari jataay yi weesu jataay bii nu nekk mu indi beneen xaaji Abdul Aziz Dabbaax radiyallahu anhu dafa xëy benn bis ci këram gëla nekk ca Faas wala recommandé nu ñu koy waxee sëriñ bi bi mu ubbee am jaa yàlla ju fa ñëw bu doon tey dañ naan benn handicapé bu fa agsi ne ko day yalwaan si mu ne ko waa baax na nanu bokk toog bu nu toogee lu fi ñëw rek nu bokk tiim ko lu fi lu fi ñëw ñu bokk tiim ko su boobaa ñu xam fan lay mujj ñu xam fan lay mujj mooy ñu xam naka la li yàlla di def mbokk yi bi ñu toogee di ndékki noppeeguñu am defkatu lu baax bu fa agsi mi ngi yor benn enveloppe enveloppe yi def xaalis nag laa wax <laughs> parce que enveloppe yi ñaari enveloppe lañ enveloppe bu weex ak bu këkki gis nga koo seen mu yor bu weex di la ko indil indiwul xaalis enveloppe bu xaalisu enveloppe ci këkki lay nekk wala boog enveloppe buy def xaalis këkki lay doon <laughs> ngeen baal ma boo fi amee tey ab conférence wala ñoom seen yooyu enveloppe yu weex yi dañ naan xus xus bare bari da ngay yendoo waññi ba ngoon jot doo am vingt cinq mille yàlla nu yàlla yërëm <laughs> waaye bu dee bu këkki moom bu benn ñëwee rek sa aajo faju yéen xam ngeen ci dara kenn mësu koo gis rek waaye sëriñ bi bi ko waa ji joxe enveloppe bi rek mu jox ko ki doon yalwaan a ah, ki ki ko ki joxe enveloppe bi moom xam na li ci nekk rek mu ne ko sëñ bi doo seet li ci nekk loolu la loolu wax sëñ Abdul Aziz Xaaj Abdul Aziz na ko jëru ko yow mi ci def li nga ci def yow xam nga lu ci nekk mu ne ko waaw mu ne ko bu bu bu waa ji ubbee moom dina xam lu ci nekk mu ne ko waaw mu ne ko sunu borom mi nu bind te umpilewul dara xam ne li ci nekk mu ne ko waaw mu ne ko man bu yomul xeyaamee bu ma ko yàlla nangulee danaa xam li ci nekk ba fii nu toog xaaj Abdul Asiis xamut enveloppe booba ñaataa ca nekk mbokk yi do jeexalaguma ci misaal yooyu waaye yi ngeen ci xam bu ngeen toogoon fii wax ci yu yi ma ci xam sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum defe naa xam ngeen ne amoon na njëgu oto waaye taxi rek la daan jël te nee na taxi yëpp nag xëntug taxi moo ko ci gënal <laughs> waaw sëriñ Cheikh nee na taxi yëpp nag xëntug taxi moo ko ci gënal defe naa dégg ngeen ba muy nekk li xëntug taxi am nga ba mu ko jëlee ci guddi à trois heures du matin far taxi ba paan borom taxi bi ne ko puus ma sëriñ Cheikh ne ko ah xanaa dañuy wàññi li ma lay fay dégg ngeen fañ mujj ñoom ñaar tabarkalla waaye Sëriñ Cheikh waa ji mbokk mi daay ñëw ne ko man de dama am sama xarit boo xam ne bi day liggéey ci jënd ak jaay waaye de dafa daanu de fi ne de ay bor topp na ko Sëriñ Cheikh wañ ñu fukki million jox ko ne ko demalit ko mu dem it ko waa ay borom defar yim defar yëpp tabarkalla ñëw di ko jaajëfal muy yëkkati fukki million jox ko ne ko demalit ko <laughs> waa ji nag léegi nag dafa bëgg gis sëñ Cheikh sëriñ Cheikh ne ko ëpp naa def gis rek maag yow mu ne mënu ko ëpp naa def ndax ñaari yëf benn bi mooy damay bañ gis la ñu defe ne damay propagande bi ci tegee mooy damay bañ ñu gisee maag yow nga wàcce sa maqaam ak sa daraja na ko ñaari yëpp benn jaru ko ci doxal ma dem allahu akbar mbokk yi ma jeexal rek ci misaal yooyu sunu góor gi nekkoon fii ci yaraax góor gi Ahmed Gaye ñun ñuy jàngale araab ak ne ci rajo yi ñu ci bari ci ñun xam nañ ko soo ma saan ñëw ne ko diw de boroom xam-xam la daf lay woo ba nga ñëw daf lay woo ba nga ñëw ndax yaa moom fi nga dëkk <laughs> allahu akbar ndax yaa moom fi nga dëkk looy dépensoo lu lay doy cib ceeb ñaata nga joxe par bés moo yow ba nga wax lépp mu calculer ko bind ko tibb lu ñu toll jox la ne la weer wu jot danga ci jot doom yi ne ko waa bàyyi loo jublu ci lii mu ne damaa bëgg bokk ak nit ñi lima am ndax ma bokk ak ñoom liñ am damaa bëgg bokk ak nit ñi li ma am lan la am xaalis la am mu ne da ko bëgg bokk ak nit ñi léegi nag bëgg bokk ak nit ñi li nit ñi am mu ne nga ne ko lu nit ñi am mu ne boroom xam-xam boo gis am na xam-xam xam na li muy jaamoo yàlla kon kooku ku ànd ak moom ku de ku booleek moom duutoo jeexal ndax ku booleeg ku dul jeexal sa àll duutul jeex mbokk yi yàlla noonu yàlla xiir ci al infaq fi sabilillah yi may wax ni nag misaal yi ngeen ci xam a ëpp fuuf yi ma ci xam waaw al te nekk ci daarul xuddus suñu abdourahman suñu abdourahman indi na ci fii nu toog di enregistré fukki at ak benn xarum tabaski te musuma koo gis musumaa gis te ab sëriñ la ab xalifa la te daaw ko yónnee te musuma koo gis damay ñëw rek fekk fi mu xar ku fi indi li ñu naa ab sëriñ la de anamu dem na point naa yem foofu ngeen mottali ñi ngeen ci xam ci réew mi ci joxe fi sabilillah naa yem foofu su ma duggee nag ci yeneen côté mën naa am ñu naa ah, nangam nangam waaye ni ko sëriñ si di joxe ñooñu noonu la ko lenn ci politiciens yi di joxe waaye bu ñu leen tuddee ñoom tudd nangam ki nangam réew mi day réewum aada moo tax juñu nag doy na ko am xel waaw te ku jóge ca daara ja <laughs> day bàyyi xel yu mel noonu mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot al infaqu fi sabilillah joxe ci yoon yàlla mbokk yi sunu boroom dafa am lu muy def di ko defal nit mooy mayul ñëpp alal waaye xañul ñëppit waaw ñëpp alal waaye xañul ñëppit ndax alal alal day xéewal goo xam ne daa bokk ci xéewali yàlla yàlla yi xéewale nit ñi bu la alal nag boo amee pédagogie joxe duutoo jeexal wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kathira gis ngeen laay jam topp ñii daawa ñoo koy àbb rek waaye dañ koo àbb waaye laay ja ko ja ko a topp dégg ngeen ko mooy nit day jàng pédagogie joxe wala aaru joxe wala aaru maye yàlla day joxe alal muy xéwal gu rëy wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha yàlla nee na su ngeen mu ñëw sama xéwal yi mënu leen koo compter xéwal yooyu nag ci la alal bokk boo ko amee waaye nag da ngay fexe ba sa alal nga moom ko tem bañ laa moom dama mas a dem ci rob abrop ñu tiim ki faatu ñu ne ma yaa koy jullee ma laaj ay borom kan la fi ameel bor waaye laaj kan moo ko fi ameel muy ñetti ñetti deux points troisième point bi nag ma ne ku ci am lu muy seede ci moom am yëkk ci loxoom ma ne ko bisimilah mu ne ma man day wax ji ma ciy wax lépp du mat ñaari minute ma ne ko waaw mu ne ma kiita tëdd nii bugaal bugaaloo la tuddoon mi ngi woon ci cité Bastos ndax lu amul seede baaxul sëñ Cheikh moo ko wax mu ne kii tëdd nii dafa am baat bu ma daan wax lépp lu ma am ci àdduna daanaka baat boobu moo moo formation ma ne ko ban baat mu ne daf ma daan wax diw ma ne ko xaa mu ne ma fexeel ba mag sa xaalis waaye na nga fexe ba bu la xaalis mag mbokk yi nañ saraa loolu fexeel ba mag xaalis waaye fexeel ba bu la mag xam nga ku mag xaalis da nga ko mën a yónni bu la xaalis magee moo la yónni kër yi fi ne sa grand frère xel xalaatu nga yónni sa grand frère sa petit frère nga yonni bu dee jigéen petite sœuram la yónni waaye grande sœuram du ko yónni kon ku sa xaalis mag rek yónni la bu la yónni du la yónni fi baax waaye boo magee sa xaalis nag ah léegi yaa koy yónni yaa koy defloo yaa koy dindiloo ma ne keroog mbokk yi jullee googu ñu doon jullee koogu yaram yu bari daw na fa te jël bind boobu man de keroog ba ma taxawee ca rob booba ba fii ma toog bind boobu day ñëw ci sama bopp bi rek saa bu ma waxataane lu dem likkiri rek daal di ñëwaat sunu borom dafa boole alal ci xéwal yim nuy defal ak wërsëg daf ne wa amdatnaakum bi amwaalin wa baniin wa ja'alnaakum akthara nafira ba dema ci suratul isra boroom bi nee na ñi am alal moo leen jox liñ am ñi am ak dund am kër moo leen ko jox ba noppi doole leen alal ba noppi dolli leen ay doom baniin ay doom moo tax ni alal nekk xéewal la doom yu bari nekk xéewal nit day bari ay doom boo dee jigéen da nga am treize gosses boo dee góor takkal quatre femmes ku nekk treize gosses nga am cinquante deux gosses teg leen foofu seen baaram yàlla ñu yàlla boolee sàmm te aarnu def jàmm ci réew mi réew yi noo ngi am mbégte lool suñu mbokk yi nga xam ne ñu seetaan ci Mauritanie tabarakallah ci bani daymaan bani sarsaara di ànd ñun jotaay bi tey dinu dinu yónnee ay ay jaajëf ci seen whatsapp yeeg yu ni demee yàlla na yàlla nangul nu nangul leen donc ci koor gi yàlla nañu am kàttanu woor ba jeexal waaye yàlla na am nun tam lu nu joxe tabarakallahu ba jàng joxe te jàngale joxe ñu ngi jégalu soxna yi di jégalu doomi soxna yi yàlla mi nangu koor yàlla nangul sunu koor yàlla na yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir ci def ci sunuy poos dara in uridu illa al islaha ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh